ñaan jàmm ci réew mi ak réew ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara noo ngi woon ci niñ koy baaxu ji defee fajaru samedi rixlatun ila daaril axira tolloon ci wasfu naari melal sawara yal nañ ci mucc ngeen mucc ci toll nañ ci sunu borom di wax ci hadisul qudsi man maa ngi ci njortul sama jaam bi waaw suñu Cheikh daana wax ne ñu góor rafetal njortu sunu diggante ak sunu boroom rafetal njortu sunu diggante ak sunu morom te tëdd nelaw allahu akbar waaw mën nañu rafetal njortu sunu diggante ak sunu boroom rafet njort suñ diggante ak sunu moroom tëdd nelaw ñëwoon naa ba toll ci bu kenn wóolu sa bopp maanaam assuré sa bopp ne yow daal na nga jëm loolu bu ko kenn def waaw ndax jàngoon naa addis bi ci bind bi weesu yàlla bind na téeméeri yërmande téye juróom-ñeent wàcc benn ñu ci yërëmante waaye mbokk yi bul naagu mukk daat ne li ma def baax na bokk naa li yàqal ñu bare bare bari li may def baax na bokk naa léegi nag yaa ngi tàmbali di xool koo gis ne moom defut lu baax bokkut loolu ëpp nay def loolu ëpp nay def waaw inna rajula la yatakallamu bi bil kalima laa yara bi a basa yahwi biha sabina xarifan fi nnaar hmm? rawahu tirmisi wa ibnu maaja wal xaakim wa saxahu al albani ustaas Cheikh Tandian ba demee ci aljaami moo fa nekk addis junni ak juróom-benn téeméer fukk ak juróom dafa wax ne nit dana wax ab baat nit dana wax ab baat yaakaar ne baat ba garaawul mu dem yomal xiyam ñu daan ko daani juróom ñaar fukki at ci biir sawara ndax moobu mu wax allahu akbar waaw benn moo la prononcé baat baa ko jural loolu benn baat rekk la wax moo tax radiyallahu anka yaa sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma xam naa bu ñëwaatoon ci pénc mii tey dana wax ne lu mu noppi woon dana ko yokk allahu akbar sëñ Mbàkke si la jóge ci jotaay bi léegi nee na dafa am seen waajur wu nekk Jurbel booy waxtaan ba mu dégg nga ne sëñ Cheikh Mbàkke nee na nee na góor gu lu mu jàppoon dana ko bàyyi ñëw toog ne jox la nopp di la déglu waaw ne laa <laughs> ni wax de waxal ma dégg ala kulli xaal nit dana wax ab baat pour moom baat bi garaawul mu dem yomal xiyam ñu dugal ko sa war a juróom-ñaar fukki at ndax baat bi mu wax ëw mu ana noppi ana noppi inal abda la yatakallamu bil kalima maa yatabayanu fiha yasulu biha fi naar abada ma bayna al mashriqi wal maghrib nit dana wax ab baat benn phrase boo xam ne dara wóoru ko ca mu dem ñu dugal ko safara xóotaayu diggante asamaan ak soow waaw waaw moo tax léeg-léeg nga ubbi rajo bi dégg wax sa xalaat walla nga dégg yeneen émission walla ngay seetaan débat nga séen ca nit ku yëkkati kàddu teg ca morom ja walla mu yëkkati kàddu teg ca kilifa ak morom ja rekk tabarkàlla nga jàpp sa nga jàpp sa sikkim laa ilaha illallah hadis boobu axrajowul buxaari wa muslim wa ahmad ñu jële ko ci abu hurayrata radiallahu anhu ba dema ci sayxul jaami moo fa nekk seize soixante sayxul jaami moo fa nekk seize soixante-dix-huit sunu mbokk ma ca ndeysaan àll al mamlakatul arabi saoudia ci al madina Cheikh Dieng yal na yàlla yokk ko wér waaw boo demee ci téeréem ya la ma ca woon sayxul ndeysaan <laughs> mu mu invité ba affaire ndaw kundaa yooyu waaw ne ma nag da ngaa war a <laughs> ma ne ko ndeysaan wax ko ca kaw waaw wax ko ca kaw la alxaaji ji li may waxoon sëriñ saam laa <laughs> fokk baat saam mu ne am na ko dangaa war a bari téere waaw dangaa war a bari téere kon nag am lii nga tabax ci kaggu gooy def téere yi mu ne waaw mu ne ko léegi nag soo noppee nga am lii dem jënd ci téere <laughs> jox ko ay million ne ko demal nga jëndi téere waaw si saam dem jëndi téere ba mu ñëwee mën nañu téere yaa ngi ne noo ko bokk waaw waaw waaw nit dana wax benn baat rek tabarkalla baat bu jural ko musiba yowmal xiyaam fii nag ci àdduna nit day wax ma ne man de wax naa ko maa tey comme nogay nogay dalay wax baat bu la naqari ni këj loo mën defal ndekete yëf du fii fële la ndeysaan noo koy génn àdduna ay mbokkam defar ko yóbbu ko ci seen armeel yooyu ci soowu dëkk ba denc ko fa léegi nag baat ba dooru ñëw baat boo mu a wax léegi nag mu ko fay réccu waaw mu ko fay réccu waaw léegi nag <laughs> comme fu ma xëyee xas ko <laughs> am na am na un pour cent waaw tane tane na un pour cent yàlla na gën a tane balaa faatu te gudd fan tuuti <clears throat> fa naaru xalaqaha allahu taala li usaati l jinn wal ins yàlla dafa bind dafa dafa kerye sawara pour bëgg ca duma nit ñi dëng ak jinne yi dëng wax na suratul araf aaya cent soixante-dix-neuf wa laqad dara'na li jahannama kathiran min al jinn wal ins mu ne al mu ne sawaraak nii préparé naa ko ba teg ko ñu bari fay dem ci jinne yeeg nit ñi waaw di san Serigne Cheikh cey mu ne aljanna ñu tuuti ñoo fay dem ñu ne ha mu ne waaw sawar ñu bëree fay dem xam ngeen lu tax ñu ne ko déedéet mu ne aljanna ku ñàkk fulla te yi doo fa dem te nit ñi li ëpp ci nit ñi dañoo bari ñu ñàkk fulla te doyadi <laughs> radiyallahu anhu waaw wa dhikruka ba'da al-mawti umrun thani wallaay ci waaw <laughs> sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si al laqad kunta maktuman wa ma zilta maktuma ndeysaan gi daa àggagul moo tax boo àggee naa leen ko jàngal ci ci rajo bi ndeysaan lahum mu ne ñu bare bare ngi jëm sabara ci jinne yëg nit ñi mu yàlla lu leen ko yóbbee voilà la question waaw laaj baa ngoog xam nga leen yóbbu ñi sawara nit ñi ak jinne yi lahum xulubun laa yafqahuuna biha mooy doyade ba duñ jëfandikoo seen xel doyade ba duñ jëfandikoo seen xel waaw sunu mokkum daara Ibrahima Xalil Lo nee na yàlla daf ñoo jox ñun ñëpp kenn ku ci nekk ab torche bu mën a nit dafa ci ñetti batterie ko pile nee na waaye léeg-léeg nit ba mu yàgg nga ne torche bi lu tax ngay niit lii <laughs> Oh, aw coow la dikk na nee na ngay xuloog torse bi pourquoi ngay niit lii wala hum ayunun laa yubsiruuna biha mu ne ñu bare ngi am ay bët mais du gis ñu bare ngi bëri ay bët ñu ngi am ay bët waaye du gis wala hum aadanun laa yasmacuuna biha ñu bare ngi am ay nopp waaye du dégg dañuy jëli son rek dañuy jël ay son rek waaye duñu dégg duñu dégg suratul araf la ko yàlla wax waaye waxaat na ci beneen barab muy suratu Hud ay cent dix-neuf wa tammat kalimatu rabbik lu xew la am la anna jahannama min al jinnati wannaasi ajmain yàlla mooy dinaa duy sawara ba mu fees del jahannama nit ñeeg jinne yi nag ñoo koy fees yàlla di ñu nettali eh, waxtaanu jinne yàlla di ñu nettali waxtaanu jinne ya mooy bi nu yónnee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jinne ya dañoo woote benn conférence de presse <laughs> comme moo xew léegi jinne yi woote benn conférence de presse def benn déclaration pour gi seeni responsabilité ci li ñu def ci pénc bi ne kaccet ñu ci noonu waaw jinne yi woote benn conférence de presse bu xumb nit ñu ñëw journaliste yi ñëw waaw euh, amateurs yeeg professionnels yi ñëpp ñëw waaw ñi ñiy bind ñëw ñi nekk li ñëw ñi enregistré ñëw jinne yee def seen déclaration moo tax suratul jinni tabarkalla saar wu jar jàng la al waaw al ustaas Iran Ndaw fan yi mi ngi ci tabarkalla waaye lu am solo la saar woowu jinne bi ñu wootee ba jinne ñëw ñu ne dañuy def déclaration déclaration bi nag ca saar wa daanaka lépp moom la waaye bokk na ci tam lii waaw toll ci aaya quatorze su jàpp quinze noté leen ko note leen ko yéen ñi note jinne dañ ne wa anna wa anna min al muslimun wa min al xaasitun à partir d'aujourd'hui yéen nit ñi ñun jinne yi dañoo bëgg ngeen xam ne ñaari xaaj lañu muslimuna xaasituna <laughs> muslimuna a ñaar ñooñu rek lañu jinne yi ñoo ko wax muslimuna lañu ak xaasituna luy na mooy ñu nekkul muslimuuna waaye yàlla mu ñu jàngal terme bu rafet au lieu ñu ne muslimuuna ak kaafiruuna mukk ndax jinne yi comme ni ñu def declaration ñoom duñ attaquer seen mbo seen moromi jinne yi wala ñu leen di tuumaal ay kaafiruuna ak yooyu déedéet waaye nit mi ngi koy def tey nit ay xool nit ne ko yéefar nga mukk bu ko defati wala xool nit ne ko biddaa nga bu ko defati waaw wala xool nit ne ko mushrik nga ab jullit bu leen ko defati xoolal jinne yi minal muslimuna ku nekkul muslim looy doon mu ne añ ñoom ñoo ñu ne xaasituuna ndeysaan <laughs> ay waay alxuraan alxuraan day yar nit yar ay jikkoom yar aw làmmiñam yar kombar léppam tabarkàlla xool li jinne wax rek wa anna minal muslimuna professeur wa minna alqaasituuna waaw ndax bañ a tuumaal seen seen mbokki jinne yi tuumaal leen ay yéefar ak yooyu ndeysaan ñu ne ay jullit lañ ñeen ak ñoom xaasituuna lañu waaw fa man aslama fa ulaika taharraw rashada ñu ne ku nangu fa man aslama ku nangul yàlla nekk jullit ah yaa nga teg sa tànk ci njub ga de boo góorgóorloo dem wa amma alxaasituuna fa kaanu li jahannama xataba waaw waaw ama alxaasituuna fa kaanu li jahannama xataba ñoo nar a nekk mattum mattum sawaraw jahannama ëllëg waaw loolu bokk na ci keroog kàddu yi ñëwoon ca seen eh, seen séminaire seen ngeen baal ma eh, seen conférence de presse ba jinde yi waaw waaye mbokk yi maa ngi ci rixlatun ila daaril axira maa ngi ci melal sawara maa ngi ci bu kenn wóolu boppam assuré boppam ne mu ci na ci sawara boo ko kenn def ndax yii ba dem surat rahman aya 31 sa nafraxu lakum ayuha thaqalaan fa bi ayi alaai ju neex Maodo fay la tabarkallah <laughs> waaw Maodo mi def xibaar ci fajar gi laaj ju laaj ko neex la sa nafraxu lakum ayuha thaqalaan yàlla nee na jam fi nekk nii de ngeen baal ma ci terme bi dafa bëri ay occupation yàlla nee na fi ne daa bëri ay occupation ndax kee di dee kee di kee ngay juddu oto bee nga këpp ñee ngi leen yóbbu ña ngay robi waaw occupation yi dafa bari waaw fi ne sunu borom xam naa bu fekkoon day ñàkk jot ñu ne amul jot waaye tabarkalla loolu di su ko wax waaye daal fi ne lu ne ma nga ca yasaluhu man fi samawati ardi kulla yawmin huwa fi shaan waaw kulla yawmin huwa fi shaan mi ngi ci yëf waaye nee na bis bi moom <laughs> sanafraxu lakum ayyuha thaqalaan tey mu ne tey moom benn tâche rek la am ci lenn rek lay xëy mooy régler nit ñi ak jinne yi dana am bis boo xam ne bi kenn du judd kenn du dee kenn du ngénte kenn du céetal kenn du tukki kenn du rob kenn du sang néew lenn rek la yàlla liggéeye mooy sa nafraxu lakum ayuha thaqalaan tey danaa wut sama jot gi yëpp occupé ko ci yéen ndax régler leen yéen nit ak jinne ndeysaan di régler ba dugg ba dugg Dakar waa Dakar waa Dakar ñu ñu ne ñoo ngi nii <laughs> nu tàmbali noonu laaj nu ngeen def ba dëkk bi salte nu ngeen def ba tëli yi baaxul waaw nu ngeen def ba pont bu ngeen fi def ngeen mbëkk ko lu tax ngeen di mbëkk poto làmp yi lu tax ngeen di daj yëf yi ferrailleur di ko dem di jaay te weñ yéen ñëpp ngeen bokk ko pour pourquoi ngeen koy def lu tax dëkk bi amoon anarchie lu di wax lu ne mu dugg ko su ko defee ñu ne ñu ne Senghor mii <laughs> ñun waa Sénégal ñu ne Senghor mii Senghor ne du man de ñu ne kon Abdou Diouf ñu ne du mam la ñu ne kon kon président Abdoulaye di mii la ñu ne du am ñu ne kon président <laughs> ngeen baal ma si te coow na kur coow na kur nan ko defar fi bala noo dem ndax bu demee lay wi gën a jàppandi ngeen baal ma allahu akbar sa nafraqu lakum ayyuha thaqalaan kenn ku ne jiiñ sa morom kii kii kii kii ndeysaan loolu sunu borom mi ngi ko suuratu Rahmaan aaya 31 jàpp 32 mbindeef yi saayirul xalq te malaaka yi gën caa tedd walla bokk ci ñi ci gën a tedd hmm? sunu borom wax na ak ñoom ba malaaka yu tiit muy aaya 26 ci suratul bi jàpp 29 wa qaalu taxasa rahmaanu walada subhaana bal ibaadum mukramun yàlla nee na dafa am ci nit ñi ñu ne malaaka yi ay doomi yàlla lañ subhaana yàlla ne tuug tuug waaw ñi koy wax yàlla ne leen tuug bal ibaadun mukramuuna ay jaam lañ yu am teraanga waaw teraanga yi malaaka nag lu teraanga yi bari bari rek munu koo soppi mu doon doom yàlla loolu du cosaan du lu baax bal ibaadun mukramuuna waaw laa yasbiquunahu bil qawl malaaka yi kenn ñi mu cee jiitu ci yàlla wax lu mbuxut te nit dana toog léeg-léeg doom ja jiitu ko ciy wax waaye yàlla nee na malaaka yi ay dañoo am ay teraanga waaye amu ci ku ko ñemee jiitu wahum bi amrihi ya'maluun lim leen digal la ñuy def te am na ci nit ñoo xam ne ngay digal sa doom lii mu def lee la yàlla nga far nangu nga yónni ko mu jaar fee ak bari yàlla te daal ya'lamu ma bay na ay ma xalfahum li ci kanam malaaka yi xam na ko la ca seen ginnaaw xam na ko wala yasfauna illa liman artada malaaka yi du ñu ràmm kenn duñ intervenir intervenir kenn xanaa ku yàlla gërëm ku yàlla gërëm repêché ko professeur jël jël diplôme ba wala attestation ba wala badge ba jox ko malaaka ne ko joxal ma ko diw loolu da lañu am ci maram wala yasfa'una illa liman irtada waaw loolu dong la ñu am ci mbaram de illa liman irtada tey bu Ali Imran di woote ca daaru cubb nit ñi ñëw ñu ba war a jox fukki élève ak juróom seeni seeni neexal dañuy tànn ci biir nit ñi moo tax kuñ ca tànn nga yëg ne lii teraanga la waaw ma tax keroog ñu tànn meer mboose ndeysaan mu xëm lay <laughs> ndeysaan meer mboose njaay ñu tànn ko rek mu xëm kenn mësu koo gis rek allahu faatu jàll jox ko kàddu ba rek ne ko joxeel rek mu xëm ndeysaan <laughs> yal na ko yàlla yokk wér <clears throat> hmm? waaw wala yasma'una illa liman irtada waaw wa hum min xashyatihi mushfiqun tiit giñ tiit yàlla tiit giñ tiit yàlla kenn werante wu ko tiit gi ko malaaka yi tiit kon du seen papa allahu akbar lam yalid wa lam yulad wa man yafal minkum wala wa man yaqul minkum inni inni ilah min dunihi mu ne malaaka mu fi mu fi nit ñi jay <laughs> yàlla mu ne malaaka mu fi nit ñi jay ba nga ne inni ilaa danga ko réccu wa man yaqul min minhum inni ilaa malaaka mu fi nit ñi jay naan la yaa ko yor yaa def ni nangam ba nga ne sogg ni man yàlla la min duni fa zalika nujzihi jahannam ma lakk ko hmm? waaw kazalika najzi zalimin te ku tooñ ba jaar fi malaaka yi jaar ma jaar feeg yow rek waaw lay lay lay sunu borom di ah waaw tabarkal lu loox de kon ndegam malaaka yi lay wax li nit waxi noppi surtout Anbiya la ko wax aaya vingt-six jàpp vingt-neuf waaw at taxwiifu mina naar ab téere la ba dama ca paas quatorze ca la ñu wax wax jooju ba dama ci paas quatorze ca la ñu wax wax jooju mbokk yi yàlla na ngeen mucc ci sawara nu mucc ci sunu njaboot yépp mucc ci mooy sunu temu samedi rixlatun ila daaril axira tey dañ doon indi tomb bu kenn assuré sa bopp ne sawara gaayay dem man duma dem ëpp naa wax seytaan nag léeg-léeg mu jëm ko dugal ci xeli nit ñi jërë geen jëf suñu ko dégloo benn yoon ñaar yoon ñetti yoon indi bu bees incha allah suñu mbokk yi xëy ci xibaar ñoo nekk ñi taxaw yor seeni kayit bëgg la na firiñ fànc la xibaar ci tubaab firiñ fànc lañ ko ci wolof ñu ñaana leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu suñu sponsor bi C3S waaw nekk ci yaraax boo weesoo kàppaa